asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Saalihu yàlla na fi yàgg lool te ànd ku wér ànd ak njabootuk soxna ay Aysatu Waalo moom sëriñ Saalihu gépp ñoo yëkkati kàdduy cant ak yooyu ngërëm di ko jëmee ci mbooleem jullit yi rawatina taalibéy sëriñ Touba Xaadim Rasoul yi ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxaw nañ ko ca bisub soxna ay Aysatu Waalo Mbacke bi kàddu cant yi nag ñu di ko tàmbalee ci kilifa ñëpp di sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa di ñaan sun borom yàggal ko fi lool doole ak wéram sëriñ Moustapha nee na taxawaayi mat na biir mat na biti kon nag mi ngi koy sant te di ko bàyyi ak sëriñ Touba Xaadim Rasul mu fay ko lu kawe njortam jaar ci kilifa ak boppam di sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saalihu ak mboolam njabootu sëriñ Saalihu gépp di santit mbooleem buntu kër yi sëriñ Touba yi bàyyiwul benn buntu kër tàmbalee ko ci kër Cheikh Mahamadul Moustapha al Karim jaar ci kër Cheikh Mahamadul Fadal Mbacke jaar ci kër Cheikh Mahamadul Lamine kër sëriñ Abdoulahi Mbacke kër Cheikh Ibrahima moom Serigne Touba jaar ci buntu kër Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ak kër Serigne Abdoul Khadir jaar ci kër Serigne Salihu ak kër Serigne Souaibou ak kër Cheikh Mahamadou Mourtada ak kër Serigne Abdou Samad bàyyiwut benn buntu kër di santit mbooleem njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci buntu kër yi Serigne Touba yi nga xam ne jigéen yi ñoo fa féete tàmbalee ci buntu kër soxna Fatidia kër soxna Assu Mbàkke Mbàkke Kajoor kër soxna Assu Gaawaan kër soxna Mbeen Gaabu kër soxna Muslimatu kër soxna Ami Seex kër soxna Maymunatu Mbàkke Kubra kër soxna Mominatu kër soxna Maymunatu Suxra kër soxna Jóob Mbàkke ak mbooleem njabootu sëriñ tubaa gi bàyyiwul kenn di santit mbooleem njabootug sëriñ Mbacke Mor Anta Sali gi tàmbalee ko ci kër sëriñ Momar Diarra jaar ci kër maam Thierno Ibrahim kër maam Cheikh Anta kër sëriñ Afia kër sëriñ Balla Coro ak kër sëriñ Cheikh Coro ak kër sëriñ maam Cheikh Absa bàyyiwul benn buntu kër ak kër sëriñ Massamba Mbacke di santit mbooleem njabootug sëriñ Busoobe gi ak mbooleem njabootug sëriñ Saa Buso gi di sant mbooleem buntu kër yi cheikh yoon wi bàyyiwul benn buntu kër di sant mbooleem taalibe yi di ci seen i taxawaay ak mbooleem njabootuk sëriñ Touba gépp bàyyiwul kenn sëriñ Moustapha daal moom sëriñ Saliou nee na mi ngi ànd ak njabootuk soxna Waalo gépp di sant di ñaan di gërëm di ñaan képp koo xamante ni bii teg nga sa tànk ci bis boobu wala nga def ci dara foo mën a jóge ak koo mën a doon yàlla mi nga xam ne moo amuk pay yàlla na la fay lu kawe sa njot ñi ngi ñaan nag nag sëriñ soxna Asta Walo Mbàkke di sàkku ci ñëpp ñu ñaanal ko sun borom subhanahu wa taala mu gàttandoo ko ak yërmandeem ak tawfeexi sëriñ Tuubaa wanale ko ak sëriñ Saalihu Mbàkke tabbal ko jannatul firdawsi bi barakati cheikhna Ahmadul Xadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu